nañ ni que ay doomi Sénégal euh, ñoo ngi dugg ba léegi si gaal gi pour dem fi nga xam ne nii moom mooy Espagne euh, yàggul dara tàggee nañ ñu ay doomi mbuur yi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan si yoon bi mu tolloog cinquante deux jeunes yoo xam ne nii mbuur nañ dëkk mu doon lu métti si ñun. suñ jógee si loolu nag dañuy naqarlu li nga xam ne nii moom moo si am bu njëgee ni que ay ay ay ay doomi Sénégal. ñàkk nañ seen bakkan si si conditions yu mel noonu parce que ñun kat dañ jàpp ni que accident de la route su amee ministre bi dafay dem ba si accident ba daal di xool li fa xew daal di bind communiqué jàpp na ni que war nañoo jël ay mesures di daal jël ay mesures pour accident yooyu dootul amati. nan la ay doomu Sénégal mun a ñàkkee seen bakkan si conditions yu tragiques yii nii état mel ni yëgu ko mel ni xamu ko wala mel ni boog yoonam nekku si loolu nañ jàpp ni que du yoon tey du yoon suba te dañuy woowaat encore. ñi nga xam ne nii ñoom ñoo fi nekk ay les autorités actuelles muy le président ba Bassirou Diomaye Faye muy le premier ministre Ousmane Sonko. di wax ni que Sénégal ñun ñëpp xam nañ ne que doole bi nga xam ne nii ñoom am nañ ko avant ñuy falu sax si communication. Sénégal Ousmane Sonko moo fi nekk nit koo xam ne nii moom la ñëpp jox nopp ñëpp mën nañuy ñuy déglu surtout jeunesse bi. jàpp nañ ni que ñun suñu amee responsabilité wala sensibiliser moom am na ko fukki yoon su nekkee ñun suñu suñu kàddu mun na egg fenn. moom kàddoom mun na egg fépp ci Sénégal